mbokkee tax noot yi safoo setaan AGT news dalee nag jàmm ci xibaar Doudou Wade ñu ràññee ko lool ci làngoom politique yi daal dinay addu ci li nga xam ni moom moo di président Macky Sall ak ni nga xam ne noonu lay gérer ab gouvernement am nee na régime présidentiel bu Macky Sall bi moo raw bi nga xam ne moom moo amoon ca Allemagne te jiite woon ko nee na Macky Sall moo gën a sadik ki nga xam ni moom di Hitler nga xam ne loolu lay def nekkut benn yoon loo xam ne dafay jëmale kanam ab démocratie ndax réew mi nekkatuñ ci démocratie waaye ci dictature la ñu nekk Macky Sall moom mooy dicté ay luwaawam mooy def li ko neex te kenn du ci wax loolee nag nekk loo xam ne moom ma Mamadou waa mu ne nag dina jeex ci réew mi ndax président Macky sàll moom warul bokk ci élection présidentielle yu atum 2024 bu fi jógee dinañ mën a xool naka la ñuy tëggaatee réew mi de telle sorte que suñu ay institution dinañ ko mën a respecté lu ci mënti am sénégalais yi taxaw nañ pare ngir wàccee président de la république Macky Sall ci atum 2024 daal di xool ku ñu teg ku bees mu daal di jiite suñu ko Sénégal mbokki internet yi safoo seetaan AGT News abonné leen suñu chaîne saa su ne ngeen di amay xibaar yu wér woon